doxna na diggante Maimouna fay a Cheikh Bara ba tax euh, ki di Maimouna Ndour dembo gis neen ko mu artu ci wax ji mu melni comme euh, une plainte annoncé na ko euh, ci digganteem mom ak ki di Cheikh Bara Ndiaye mustapha wa xam nga man problème la bo xamantene pour man mi ngi bëgg mi ngi bëgg durer. Mm-hmm. entre ya wax waxo ni la demee ni la demee télé bi dañ koy nangu duñ ko nangu au final lan lan lañ ciy jàngee wala luñ ci ciy amee ban lan ban lan lan lan lañ ciy gagné quoi. boo mhm. boo demee ba ci ba ci fin bi Omar da nga naan lii lan lañ ciy gagné quoi. parce que man dafa am loo xam ne man dama ko dama ko gëm. Mhm. gis nga Cheikh Bara Ndiaye c'est quelqu'un qui s'est donné corps et âme pour que ñoom Ousmane Sonko yegg. fi ñu war a yegg. il a tout fait def na ay ñaan dem na ci ay plateau solliciter nos plateau un peu partout def na ay communication un peu partout conférence de presse wàcc na ci terrain lu nekk def na c'était par rapport à une période donnée C'est xamantene lolu la la laajoon mais actuellement fiñu tollu ni, nii passé c'était un procès avec Thérèse Faye Diouf bii paa yaa ngi déggaat Maimouna Ndour Fénan daf koy en justice mm. Pourquoi faire Maimouna Ndour Faye ban danger la mën a doon war a ban menace la war a envoyer ba nga toog naan montage am ñii la demee wak télé bi nii wak yi pour man yooyu yëpp pour man buñ ko rupture lañu wax nañ ko tënk bàyyi ko justice ak ñam amal problème mm. buñ demee ba justice gis na ne kii kat amal na ñii ak problème kat nangu nañ ko wala kii kat fii lañ toll ak nii loolu moom la waaye bu si amee kenn koo xamante ne surtout une personne boo xamante ne eh, da nga boo waxee ñëpp dañ lay déglu nga toll fenn fi man je pense que ne euh, période bi dafa ubbi ay front yu inutile c'est vrai ay front yu inutile lay ubbi jamono ji pour man parce que taxawaay boobu pour man amul sens quoi non sens la parce que ñëpp xam nañ fi ñu toll nii mi télévision mi rajo mi presse écrite dañoo wane seen ay limites mm. parce que bu doon ñoom dong ñooy fal Amadou Ba du fi jógee bu doon ñoom dong ñooy fal Euh, comme elle s'appelle Diouf Sarr tay Dakar. Mm-hmm. parce que ñëpp gis nañ ni mu amé won presse bi ci pocham taxul mm-hmm. wala donc kon télévision di radio, di presse écrite won nañ seen ba paré mm-hmm. ñoñu bo ci topé di wat di am bi ak di créer ay ennemis pour man amul sens. man côté ak ñen ñi gis-gis man je pense que moment bi moment la bo xamné liñu fait yépp dañu waron tok nous ko bay opposant au moins si ñu ñu nous tontu wala buñu jéré tontu ñu dem tontu mais su fait que plan ñom ñoy gouverner di opposer à la fois problème en plus des fois tu te demandes lan moyen euh, vraiment utilité euh, le fait que Cheikh à chaque fois euh, si elle analyse bien vrai qu'on aime bien Cheikh Bara mhm. muy si ni mhm. avons ça si une révélation des dossiers peut-être déjà la dame a expliqué que c'est un dossier judiciaire bon, xam daté ou sax c'est opposé entre la famille yi nga xam Ndiaye comme ni avons fait, est-ce que Cheikh Bara bu continuer si lancé bi parce que la dame hier elle a été vraiment ñu ngi koy sax euh, cru si ay hmm. kàddoom quand du kenn du nettaliwaat ay loo xam ne sax mun ko qualifier hmm. de saaga euh, sur ce est-ce que Cheikh Bara nekkul aussi euh, bu continuer ni war a gêner li nga xam ne boum nekk camp boum pour ne pas dire le régime actuel waaw man man je pense que dafa war opérer ben changement xam la situation est changée na bu njëkk ba dafa daan bu njëkk ba dañoo nekkoon si position bu offensive parce que opposition la nekkoon mm-hmm. da nga daan attaqué da nga daan wane li doxul da nga daan am benn kii bi c'est vrai opposition bi am na lu doxul jamono ji baax na nga di ko wane parce que doo toog di nelaw mais may mënoon Ndour fay par exemple loo ciy gagné. man foofu la sama question nekk quoi loo ciy gagné bon peut-être moom moo xam quoi. mais man dama jàpp ne am na yu bëri yoo xam te ne mi ngi koy tuddee ay révélation di ko wax yàlla xam na ne am na ñe téeméer nit ñu nga xam ñoom ñi ngi toog seen kër jàpp seen njàmbur mm-hmm. ba ci journaliste yi ñu ngi ci plateau yi am na ñoom dañ koy xam toog jàpp seen njàmbur parce que se disent que ne ñaati nit ñoo fi am procès di dem da nga dem tribunal di am looy lijjanti gis ñu ne fekk fa di mu ne dama amoon procès ak nangam ak nangam donc pour man yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ne il faudra que mu xool énergie boobu muy dépensé mm. pour man bu ko dencee tuuti dina ko soxla parce que opposition baa ngi jóg di ñëw mm. ñooñu nag dinañ soxla benn Cheikh baara boo xamante ne euh, du essoufflé parce que procès dañoo bëri du essoufflé du sonal boppam du sonal seen i avocat et puis ñu yërëm seen avocat parce que avocat yi depuis 2021 ba léegi ñu ngi xeex rek mm-hmm. waaw période bi nag nañ leen yërëm noppalu ko tuuti moom rek mais su fekkee yéen xeex ngeen ba gagné ngeen wëlbati ko du ubbiwaat ay procès man du ci gis njëriñ waaw moo tax actuellement dañu war a opérer changement moom ak ñeneen ñi mu àndal ñëpp maanaam énergie bi ñu am ñu téye ko jàkkaarloo ak ñi nga xam seen i opposition mais pas ay hommes de médias de médias yoo xamante ne seen dossier sax mën nañ ne parfois dans le cadre professionnel que ñu ko séqal jënd ak jaay la. affaire yooyu noonu euh, moom ak ak ak famille bi la leen la ci am wàllum fixe bi la. Mm. ñoom ak waa impôt et domaine la. Euh, pour man daal dossier yi bu nekk nañ ko bàyyi ak ñi ko war a gérer ñu ko. mais buñ ci duggee rek ba am ci benn benn benn loxo bi nii ba gàddu coow li pour moi, amul amul amul sens quoi pratiquement oui. merci beaucoup Mustapha. euh, monsieur <laughs> Diop par rapport à cette situation avec mm. la presse ak sax même sax légui da ngay gis né les politiques dañuy am sax euh, nim koy waxé sax euh, de euh, divergence ak ñi nga xamné ne ñoo nekk les patrons de presse ce cas Maïmouna Ndour fay ak Cheikh Bara laka la lay inspiré waaw merci merci beaucoup Ndiab déjà man limay may wax moy par principe un, problème entre deux privés. Mm-hmm. Mm-hmm. c'est vrai euh, le problème entre madame Maïmouna Ndour Faye. Mm. et la famille Ousmane Masseck Ndiaye c'est un problème entre deux privés. pendant à la justice n'est-ce pas. la mm-hmm. justice mu def ci yoonam. Euh, liggéeyam foofu la justice sax dañ ko tuddee fa mbaxane doone benn fa ñëpp yame un problème entre Cheikh Bara Ndiaye et Maïmouna Ndour Faye tamit ci ci c'est un problème entre deux privés donc Maïmouna porte na plainte moom na dem défendre boppam avec ses ses avocats. donc Maïmouna am na droit buñ ko tooñee wala ñu attaqué ko ci honneur wala ñu diffamé ko. Mhm. mu attaqué kiko euh, kiko ki diffamé wala kiko ko euh, en justice am na ci droit. Mhm. comme moom tamit bu tooñee ñeneen ni ñeneen ñi amé droit porter ko. porter ko plainte. Mhm. léegi justice moom mooy def rôle am beneen bi mooy. Euh, muy Cheikh Bara Ndiaye. muy maymouna Ndour fay ku ci nekk ci ñoom am nga mérite. maymuna ndour fay amna mérite nek jigen oui jo xamanteni deug deug dafa taxawal groupe de presse mhm. diko ñafé ak yeen ñi nek ci presse bi xam ngeen ni euh, c'est pas c'est pas c'est pas évident mhm. ci charge yi ak naka ngay boucler say fin du mois naka ngay fay say employé donc mu ñafé ko ba taxawal groupe de presse di liggéey am nak ligne éditorial am mën hmm. nga ci and ak moom comme mën nga ci bañ and ak moom C'est vrai hmm. donc man d' accord ma ak moom à 100 pour cent ci lim doon ci ligne éditorial am mais moom la engagé hmm. donc elle a du mérite le mérite mooy c' de fonder de créer une entreprise ba pare di ko doxal pour participer au développement de son pays loolu nañ ko ko nangul cheikh baara ndiaye il a aussi du mérite mm-hmm. moom dafa ñëw mag euh, màbb ay paradigme bu njëkkoon chroniqueur euh, intellectuel et mm-hmm. chroniqueur quelqu'un qui a plusieurs masters wala mm-hmm. plusieurs doctorats et chroniqueur un expert mm-hmm. mu ñëw ni leen déedéet yéen di ngeen ñu ñëwee di ngeen ñoo beddi woon ci ci ci xew bi mm-hmm. waaye man dinaa leen wan ni man ci xew bi laa bokk mooy ñëw man doomu daara laa jànguma français bi ngeen jàng awma diplôme yi ngeen am waaye dinaa leen wan ni xam-xam mm. du teguwul ci langue ndax langue véhicule la rek waaye xam-xam mën nga ko jàngee ci araab mën nga ko jàng ci chinois mën nga ko jàng ci français mën nga ko jàng ci anglais mu ñëw nag di def ay chronique di joxe ay ay wax yoo xamante ni dëgg dëgg nag ay wax yu ay chronique yu am solo la. Mm-hmm. yoo xamante ni dafay gindi les masses ñi nga xamante ni jànguñu woon français wala ñi nga xamante ni ay ndongo daara lañu woon dañuy gis seen bopp ci Cheikh Bara Ndiaye mu leen di wax li nga xamante ni moo xew ci réew mi te ñooñu nag di ko bàyyi xel di ko déglu. Mm-hmm. donc mu ngi doon def mu ngi doon informer mu ngi doon convaincre mu ngi doon influencer. Mm-hmm. donc li mu doon def communication d' influence la léegi nag def na ko comme ni nga ko waxee ba pouvoir bi deug nak nek en place mu xeex bàyyi liggéeyam ñëw ci plateau yi bàyyi plateau yi. on dirait que le micro de l'invité est faible. non ça marche mais. Euh, il paraît que taal na est-ce que taal na ko taaloon euh, donc voilà xëj ko mu jégué tout voilà da ngay jege tout tuuti. donc c'est bon maintenant voilà. les internautes est-ce que c'est bon parce que ñoom si waxtaan bi lañ bokk te tamit li ngay wax dafa mel ni amal na leen. am na solo am na solo voilà léegi léegi li ma doon wax mooy. Hmm. dafa bàyyi deram maanaam sëriñ la di ñaan. Mm-hmm. di faj nit ñi ñëw ci plateau yi jékki-jékki loolu doyatul mu bàyyi plateau bi dem ci terrain bi mm-hmm. xeex contre l'injustice xeex contre notel xeexal mm-hmm. li mu jàpp ni moom mooy dëgg mooy liñ doon def Ousmane Sonko ak Pastef mu xeexal leen ba affaire bi maanaam taxaw ba fi mu toll ni suñ borom jël nguur gi teg ko ci loxoy Pastef teg ko ci loxoy Ousmane Sonko ak euh, son excellence Bassirou Diomaye Faye léegi nag li ci des pour man mooy gunge leen boo xeexee ba taxawal mbir. Mhm. mooy danga leen di gunge. ci xam-xam ak ci xalaat bu rafet ak ci taxawaay. Mhm. moom foofu lañ koy xaar moom Cheikh Bara Ndiaye waaye xeexuñu xaaruñu ko ci def muy def ay attaque personnelle mooy ni nga ko waxee Moustapha pour man na éviter au maximum. di mhm. wax ci ay nit. parce que wax ci ay nit dafa suufee. c'est vrai wax ci ay idée dafa diggu doomu. lépp solo mooy wax ci ay principe. ak ay valeur moom foofu lañ koy xaar moom nee na kilifa diine li ko war a mooy éclairer. Mhm. wane yoon wi donc bu nguur gi fi xeexal ba ñu falu bu ñu nekkee ci yoon mun leen ay ay la yi woon yéen a ngi ci yoon li ngeen def dinaa ko expliquer la masse ba ñu comprendre ko. Mm. boo leen nekkul ci yoon tamit dinaa leen rappeler à l'ordre parce que moom digaalewul ak nguur gi moom boroomam lay digaale. Mhm. man loolu moo ci sama xalaat. c'est important li mu li mu wax nii ah, parce que surtout. Euh, changement de paradigme bi nga xam ne wax nga parce que ñun ñu nekk ci média xam nañ ci dara chaque jour nga gis kenn koo xam ne daara ja génne ne damaa bëgg nekk chroniqueur invité ma damay wax ci actualité bi. bëri nañ ñoo xamante ne chaque jour dañ lay wax nga xam ne kii Cheikh Bara moo ko influencé. Mm-hmm. kañ ngeen may invité nga ne ko loo bëgg mu ne damaa bëgg waxtaan ci politique bi wala mu ne damay waxtaan diine waaye tamit damay wax ci àddina. parce que tamit ci lañ bokk. donc ah, comprendre nañ ne léegi il faut ñu def le saut. Mm-hmm. génn ci fi ñu nekkoon rek daal dem bokki ji. léegi nag tout le monde n'est pas Cheikh Bara parce que yàlla may na ko fasaxa boo xamante ne mayu ko ñëpp mayu ko ñëpp nag loolu nga bëgg ko wala nga bañ ko mhm. yàlla may na ko benn éloquence boo xamante ne tey jii mhm. léegi nag bu mu doon benn bu mu ko soppi mu doon ko day bëri ay procès ñu ñi gisee ko koo xam ne da ngay bëri histoire da ngay dugg ci ay yi man pour man la ku koy dimbali ay waxi mhm. et ñu koy ku koy dimbali tamit war na ko mën a encadrer ci côté boobu mii moytu di citer ay tour ah. xam nga Sénégal fii parfois man mën naa gàddu dossier Omar mais su ma waxee wax wax rek Omar fu mu toog dina xam ne kii man lay waxal. tout ma mën du ma mës a yóbbu fenn. Mm-hmm. dinaa wax ba jóg dinaa wax ak moom ba jóg te ñu xam ne moom laay waxal. Mm-hmm. boo mënee tuddal tur mais damaa sonn ci procès yi. kaf baree génn dem sama yoon. fu mu lay yóbboo ci yoon. donc pour mon yëpp ay stratégie la yoo xamante ne boo bëggee aborder benn dossier mën aborder évacuer ko bon bon mu jeex t'es dans un ci am procès mais bu enchaîner bële génn ci biir dugg ci biir génn ci biir dugg ci je pense que c'est pas important à njëriñ ko surtout des procès yoo xam à chaque fois diffamation mm-hmm. euh, les lay toppee loolu bu yàggee euh, mm-hmm. façade yi nga xam ni nit ñi xamee woon ko sax am na mm-hmm. yenn quelques esprits yoo xam ils vont se dire Cheikh Bara aussi il n'a qu'à arrêter par rapport euh, Mustapha Bataille si